ne duñ ko imputer responsabilité mais du ñu jëlee fi këpp non këpp ñu ko mais daf ci am waaw mais xam nga bu ñu analyser man ci début bi dama bokkoon ci ñi doon wax ne en vérité président nañu firi wala mu lettuñ maanaam dafa waroon a wax dès le départ ne du ma nekk candidat comme ni mu ko defee au dernier moment mais je me suis compte bi mu waxee ne du ma nekk candidat que su ko waxoon ci la doon yëf yi di kon waxuma waxuma waxu ab APR wala Benno mais réew mi du dox. gis nga oui xam nga lu tax. gis nga leadership ku doxalul nga jëlee ko ko yaay président de la République non mais mais ko yaakaaree noonu. gis nga tey ndikoon ci ay ay ay combat interne la ñuy nekk positionnement ku nekk parce que wane nañu ko gis nga boo wanee ne yow bokkatoo sa leadership dafay dañ. leadership boobu moo jeex moom la gars yi dindi kenn déglootu ko sa à dire il faut aussi ñu nangu loolu. kenn déglootu ko moo tax après am ñoo xam ne. nii ñu ci biir nan lay nekkee ci opposition di gérer leadership même bu amee ñu ne contesté yow nga nekk ci pouvoir sa leadership ñu war koo mën a. noo du benn parce que fële espoir dafa am gis nga li ñuy wax yaakaar l' li muy suscité dafa bëri parce que ñi ñu ànd ak ñële ñu ngi ne ah ñun saa yi buñ gañee kat maa ngi xaar lii maa ngi séntu lale maa ngi séntu lale kon donc nañ ànd ak waa ji mais fii kenn séntootul dara. amatul décret pour c'est-à-dire que dañ naan lii jeex na duñ ko ko te xoolal contestation yi c'est au dernier moment dernier virage bi la gën a bëri des membres du gouvernement contestés et cetera mais en vérité en vérité le président de la République tey moom dafa jiital la Sénégal Macky Sall dafa jiital la Sénégal. tu n'es pas prudent dans son ah. propre jeu. non non parce moom moo dem ba ci biir mu ni am na yenn. Euh, waaw mais est ko. waaw ko bari ne est-ce que mën naa. mën naa noonu tamit moo continuer ci législative waaw xam responsabilité moom am na lu mu ci am. mais dama ne duñ jël yëf fii këpp ko ko. d'accord ku ci nekk lan nga ci am comme responsabilité. dama la doon analyser loolu te yegsee guma ma ne la leadership bi. daf ko perte. parce que joxe tut benn responsabilité nit ñi nee nañ pare na et cetera et mais président bi muy tànn Amadou Ba mais kenn sexalu ko lem kenn forcé wu ko ko. Hmm. il n'était pas sous la contrainte en vérité. nañ waxante dëgg aussi nag mais ñun ñoo ko jox carte blanche ne ko tànnal mu tànn gars yi mu forcé dem maintenant quelle est la responsabilité de Amadou Ba mais président, dans le silence moo tànn wala Niass la wax ni ko tànnal ma non xam nga aussi président bu fekkente ni dañ ko ne tànnal ñun ñëpp ñoo ko ko wax benno PS ak AFP ak APR ñëpp d'accord ne nee nañ ko jox nañ la carte blanche pour nga tànn mm. mu ne leen man dinaa seet koo xam ne dinaa ko fi teg pour mu xoolal ma des critères qui sont remplis ñan ñoo remplir critères yi mais biñ pare y avait une commission présider par Niass surtout Niass moo ko yore woon mais dañ ko ne kii moo remplir critère mais su fekkoon ni moom buggul Amadou Ba tànn ko mu tànn Amadou Ba di kon la leen di wax ne du ma ko jël parce que yéen a ma jox carte blanche mais defu ko. ca à dire que loolu laay expliquer kon donc bonne foi am tànn Amadou Ba am na maintenant yan facteur moo ñëw entre temps des facteurs intermédiaires man dama ne le linge sale ne se lave pas en famille euh, se lave en, en famille plutôt man sama posture membre du cabinet du président sortant permettrewul ma may génne yenn yi membre du groupe des porte-parole également mais li nga xam ne nii tey am nañ ko lu ñu naxari war nañ ko mun a évaluer en interne wax ne lii la mais Amadou Ba lan mooy responsabilité am dans ça Amadou Ba ci li ma mën a yem rassuré wuloon les gars de la paire c'est-à-dire que ñu ci bëri li ñu lay wax mooy dañ doon toog naan attention daf ñuy écarter il a sa propre équipe. est-ce que du dafa wane wane daf ko wane woon seen biir. waaw waaw mais parce que parce que acte yi mu posé en vérité c'était ça mën nañ ko interpréter noonu donc moom la ko waroon tey moo doon mu rassurer waa APR parti bi nga xam ne fa la bokk. parce que xam nga ça la question de la légitimité également souvent en politique dañ koy poser en terme de maa fi nekkoon démb kon donc duma ma nangu euh, euh, keneen ñëw fi et cetera mais ñu la waroon a rassurer parce que ñoo ñu gisoon nañ ne kii kat bu toogee ñun ñu écarté wu. mais kon donc moom am na ci responsabilité nag de façon superficielle laay wax. Hmm. comme li ma la wax dafa am loo xam ne ci biir famille lañ koy lañ koy lañ koy régler. parce que on est une famille politique. donc lan moo ci responsabilité kon bu ñu jël yëpp ne président.